dalleen nag jàmm ñu ànd xëy yër yi nga xam ne moom la ñu xëyandoo Sénégal jamono ji sorewul ak réew mu am dëj askan wi jamono ji nag dañoo sëngéem yéenekaay gii di Les Échos L'Observateur Sud Quotidien Walfadjri Source A Enquête Vox Populi mu ñu xamal ñu niki démb la woon final bi dox diggante Sénégal ak Algérie waaye nag Algérie defati nag Sénégal benn bi ci dara lakk dugal daal di jàggiku bi yanu ko yóbbul waa Algérie journal bi mu ñuy xam xamalaañu nag Sénégal jamono ji mën nañoo wax ne réew mi dafa sëngéem askan bi boo leen gisee nga xam ne nag maanaam am nañu naqar ak tiis dëkk bi ne selew kenn ku nekk di jàmbat di fësal naqar ak mbetteel gi nga xamante ni nag amoon nga ko li am ba des mooy askanu Sénégal amoon nañu yaakaar gaynde yi andil ñu li nga xamante ni mooy coupe bi ci réew mi waaye nag yaakaar tasatina l'observateur mu ñuy xamalaañu nag li am ba des bay ñu wax ko mooy nag amoon na ay faille mentale ci ñi nga xamante ni ñooy gaynde yi bi Algérie dugalee ci minute yu njëkk yi sunu gaynde yi dafa dem ba mel ni àndatuñu ak seen sago maanaam seen xel yi ci boppam moo mujjul daju yéen kaay gii di stade mu ñu xamal naa ñu en tout cas daal ñaari minute rek la ñu football ñi nga xam ne ñooy waa Algérie jël bal bi tëmbal ko ci camp yi bi biñ ko tëmbalee ci camp yi nag bal bi na saraax daal di dugg askanu Sénégal daal di ginnaaw bi waa Algérie tëmbalee bal bi ci kan yi sunu gaynde yi daw nañu ba sonn daw ba xoox waaye waa Algérie dañoo yàq li nga xam ne mooy football bi di def ay coup franc di daanu journal bi mu ñu xamal lan ñu en tout cas li am ba des sunu gaynde yi nag ba ñu dawee ba xoox ba sonn Algérie gañe ko bi ay jooy lañu ko mujj mottale maanaam ku dàq jooy sa moroom nga ne kii la dañoo tëdd ci biir tere bi ñoom ñépp Aliou Cissé mujj di leen di dëfal moo xëy di ñu ko xamal naan ñu supporters yi nag ñoom seen bopp mbetteel ci boppam mu rëy la ñu amee waaye nag Sénégal ci boppam équipe nationale bi am na ay jafe-jafe dëgg yoo xamante ni wane naka ni ki démb ubbil journal bi du source a mu ñuy xamal lañu nag lu jëm ci mbirum bal arrêté yi Sénégal li mu am ci ay bal arrêté bari na trop waaye yépp mën nañoo wax ne daf koo lajji lu jëm ci wàllum synchroniser jokkoole défense bi militaire attaque bi tamit loolu sunu équipe nationale bi dañ see am ay jafe joxe du sunuy kàddu ma ngi ci journal bi du source a enquête yéen a mu ñu xamal lan ñu li ñu rey dëgg nag mooy arbitre bi arbitre bi complice la arbitre bi dañoo suuxlu Aliou Cissé moom nag la mu xamle nee na liggéey bi dafay continuer Jamil Belmadi mi nga xam ne mooy entraîneur bu Algérie moom nag la mu xamle nee na ñoom daal benn occasion benn balle de but la ñu am waaye dañu kaa tëmbal ci caax yi journal bi mu ñu xamal lan ñu en tout cas li am ba des mooy Sénégal yi amati nañu mbetteel mu tey ji nag la ñëw ci réew mi bu ñaari waxtu jotee maanaam 14 heures ci aéroport international Blaise Diagne Aliou Cissé di sàkku nag askanu Sénégal génn tertu ñi nga xam ne ñooy gaynde yi yéen kaay gii de la mu ñu xamal ñu gént gi nga xam ne askanu Sénégal doon nañ ko gént nelaw ba yàndoor di gént coupe bi ñëw ci réew mi gént googu nag daa dinay naax saa yi journal bii di Vox Populi ñu fekk fa Aliou Cissé moom nag la mu xam li nee na démb ci boppam dafa mujj amatul solution maanaam amatul pexe fexe ngir nag mën a dindi benn but bi nga xam ne Algérie bi match bi commencé ne nañ ko caraax ci biir camp yi yéen kaay gii di source a mu ñu xamal lan li am ba des mooy Algérie ñaari yoon dóor na ko Sénégal te lii nag mooy maala man dëgg ndax Algérie fu mu fekk Sénégal daf koy dóor a dóor a dóor ba mu tëdd ab sénégalais boo xamante ni démb bi arbitre bi sexee sifflet gi na par match bi jeex na sénégalais bi dafa daanu amee crise cardiaque mujj faatu mbir mi na ca la xewee yéen gii di les mu ñuy xamalaa ñu nag les joueurs inconsolables <laughs> maanaam sunu gaynde yi démb kenn kenn mënu leen woon a nax bi match bi jeexee kenn mënu leen a nax dañoo jooya jooya jooy ba sonn jooy ba deseetuñu rongañ Pape Alioune Ndiaye moom nag la mu xam xamle ci biir journal bii di les échos nee na mbir mi nag metti na lool lool metti na ci xol yéen gi gii di Sud Quotidien mu ñu xamal ñu bi moo nekk ñaareelu final boo xamante ni Sénégal ma ngi koy ñàkk Algérie fubalul démb waaye nag def na ñoom seeni pexe ak seeni dëbbal dëbbal ba jël ko bi yóbbu réew mi sëngéem askan wi am mbetteel lool yaakaar bu tas jàngeen jëf